waaw Pape je pense que am na téléspectateurs yoo xamante ne supporters yi ñu ngi fii am ay yoo xamante ne bëgg nañ ko wax ay na gaynde yow loo bëgg a wax salaamaaleykum wa rahmatullah man li ma bëgg souligner si zone bi dafa bari dèjà mënu maa concevoir ñu fay 1000 francs ñuy taxaw ci biti ñuy ñëw toog nii au moins nañu indil ay fii sax ñu toog si ba pare am na zone sax am na équipe yoo xam ne sax ah subvention sax mënuñu ko am mais zone bi lii day génnee xaalis nañu wax na dëgg fii lu fi nekk nii nii nii nii boo ko xëymawee mais dañoo war a teg ñi si condition yu baax stade bi même bu fekkee baaxul nañu jéem a xool nañu organiser président zone man laay lancer message man neex ñu fi nekk man waxuma ñoom président zone directement laa bëgg a wax nañu jàppale parce que lii lii lii lii lii lii sport tamit nañu xool sport au niveau fu mu toll jamono jii ñu jéem a veillé noonu mais lii nii vraiment man kontaanuma ah vraiment man kontaanuma merci Diané nga dem abonné SSP TV bu ayca donc président zone tu es directement interpellé. 1000 francs lañ paas toog fii 1000 francs lañ paas toog fii fii te amuñu 16. lii du yoon zone bi dara baaxu dara. jibiti ni jibiti nañu wax moom lii du yoon. duñ fay 1000 francs toog 1000 francs lañ fay. taxaw si naaj bi xam nga loolu du yoon téeméer lañ daan fay dem taxaw ne si naaj 1000 francs lañ fay ñëw taxaw fii nii mënuñu dugg si biir amuñu accès te xoolal feesul filmeel filmeel feesul li neexul si ah? pense que supporters yi ñu ngi kaas. am naa ni dañuy dem rek ñu génn ci biti bu ko jaree ñu dem xool ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo ñëw seetaan ci match bi. sànq ba léegi amuñu sax fu ñu toog ngi bëgg a dugg nii waa gi téye porte bi te loolu c'est pas normal sànq ba léegi ñoo ngi koy ay ñeneen ni dañuy ñëw jàll ñun ay citoyen lañ 1000 francs dafa seer 1000 francs. gaaya ah, dagg 1000 francs pare taxaw fi c'est pas normal. ayca gars yi ngeen doon seetaan SSP TV donc ngi commencé waat ñu dem xooli match bi directement.